jërë ngeen jëf ami téléspectateur de People 221 ñuy séewur ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amal mbégte jàkkaarloo waat yéen di nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa aada yi tey xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi rawatina ci wàllu ñaan mu di Serigne Saliou Mbacke borom leer gi fas yéene si xam moom wàllu waxtaan ak wàllu politique sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay séewur aouzu billahi mina seytaan rajim bismillah inna waliyallah wa ma tawfiq ginnaaw bi mu musdoo di sant yàlla bi nga xam ne mooy kilifa ak ñëpp moo taw feexal ñëpp di sant itam suñu kilifay diine yi ak suñu kilifay aada yi di sant waa réew mi di sant waa bitim réew di ñaanal ñu caabi féete ginnaaw suñu borom génn leen bañ dellu seenu seenu njaboot di ñaan itam ñi tëdd si lalu hôpitaux yi suñu borom fëgg seeni bopp bañ dellu seenu njaboot mm-hmm. bisimilah. sëñ bi fi may njëkkee muy wàllu ñaan ñu gis jamono ji léegi ku jóg ñaan ba boo nee ñaankat laa sax ñu bari am bët bu ñu lay xoolee. moo bëgg nga dil ma ay leeral ci li nga xam ne mooy wàllu ñaan. waaw ñaan moom dafa nekk loo xam ne lu am solo la waaye lu nit ñi ñàkk xam la ndax tëb tëb rek nem ñaankat laa tegu ko sa bakkan loolu yaakaar naa àq la boo xam ne da koo dafa nekk sa diggante nit ñi te képp koo xam ne war nga jóg nga nee nga ñaankat ñaankat laa la ngay def war nga see xool sa diggante yàlla di wéet di jaamu yàlla. ndax suñu boroom képp koo xam ne dangay ngay wéet ak moom di ko jaamu. Mhm. te doo ko moy benn yoon xam fa nga koy fa nga koy jaar ngir boo ko dee ñaan soo ko ñaanee mu may la. Mhm. waaw kon ñaan moom dafa am bunt boo xam ne nit ku nekk soo dee ñaan suñ borom dafa am bunt booy jaar waaye tëb tëb rek nem ñaankat la di wër di nax nit ñi di lekk xaalis jàmbur yi rawatina moodu moodu yi xëy ñoo nekk bitim réew loolu moom yaakaar naa ay caaxaan la te ay te baaxul te képp koy def bala ngaa faatu di ko gis. Mhm. waaw kon daal loolu lañ la si doon wax. Mhm. ma ñëw ci li nga xamante ne aussi tamit mu di wàllu seet tey wàllu seet nga ci am ay nooy seetee loo xam ne jaaxal nañu bari wàllu seet laa ngeen ma ci leer. waaw seet moom dafa nekk loo xam ne bu nit ki ñëwee nañu ñaanal ñaanal ñu. Mhm. bala ñoo jëflanteeg yow dara dañ lay seetal. Mhm. seet gi nag dañ koy def bu baax a baax moo xam dañ lay listixaaral moo xam da ñuy woo seetal la ah, noonu noonu moo xam dangay ñëw ñu seetal la. Mhm. moo xam dañ lay tëjul seetal la mhm. waaye nit ki moom bala ñu jëflanteeg moom dara dañ koy seetal bu baax a baax a baax a baax ndax nit ki munoo jëflanteeg moom te seetaloo ko mhm. ndax docteur boo fa demee di faju bala mu laa defal dara dalay jàngat dalay jën jënn sig ñun nag boo ñëwee ci ñun bala ñu laa ñaanal bala ñu laa defal dara dañ jënn sig ba xam bu baax a a baax lan lañ la war a ñaanal ak yan sarax nga war a génn ak luñ la war a luñ war a def defee say mbir ndax nit ki mënoo koo ñaanal mukk te seetaloo ko ba mu leer ma ñëw ci li nga xamante ni mu di wàllu fas gi fare naa sax ci weewu bëy ni sëriñ Sidi Mokhtar moo la ko jox fas kooku laa bëgg nga wan ñu ko indil ñu ay leeral. waaw fas gi dem mi ngi nii fas gi fasu kàttan la képp koo xam ne saw awra day dellu. Hmm. wala da ngay gaaw a àgg wala dangay am problème mu sëy. Hmm. wala da néew kàttan sa néewu sëy. Hmm. wala da ngaa am feebaru ndigg. bis bu suñu borom dogal la ñu déggoo ñu ak yow. soo ko takkee suñu borom dina la si defal tawféex. Mhm. ndax fas gi fasug baatin la. Mhm. bëri nag bëri nag coow. Mhm. ndax dafa nekk loo xam ne nit ñi xamuñu ko bu baax. te nit ñi lépp luñ xamul bu baax. dañ siy xaw a duut te lii moom nekkul lu ñu duut ndax bu nekkoon loo xam ne day am jiixi jaaxa kon ba tey nit ñi génn nañu wax. ndax nit ñi kenn moomu leen. te ñu niñ ko niñ ko ko jox ëpp nañ junniy nit wala ñaar ñaari ñetti fukki junniy nit. te joxe nañ ko Sénégal joxe nañ ko Europe. Mhm. te képp ku ñu ko jox tudd nañu si doom jox nañu si taraanga bu nekk. Mhm. kon fas ki moom nekkul loo xam ne lu ñuy si si sàkk la. Mhm. lu wér la te lu am la. te ñun yaakaar naa bu nekkutoon fas ki sax buñ bokkee sëñ baara sëñ baara nekk suñu maam bis boo indee biteel buñ si tiflee yaakaar naa luñ la ñaan mu dal. bu ma laag ak fas boo xëy sëñ sëriñ bi la jógee. fas gi nag bëri na coow. waaye nag euh, képp koo xam ne takk nga fas ki sa ndigg di nga xam ne bokkut ak yi nga daan takk. ma ñëw ci wàllu ndomba gi wàllu ndomba gi doon ndomba goo xamante ni euh, euh, jaaxal nañu bari te it day def li xale naan day def effet wàllu ndomba gi laa bëgg nga ma ci ay leeral. waaw ndomba gi moom mu ngi nii ndomba gi ndomba ak euh, baatin la. Mm-hmm. waaw ndax ndomba gi dafa nekk ndomba gu. Mm-hmm. doy waar. yëkkati ko ñu gis ko. waaw téye ko. ndomba gaa ngi nii. Mm-hmm. ndomba gi dafa nekk ndomba gu doy mhm. sax di ko wane ndax dafa am lu yu tax. Mhm. damaa waxoon tur mhm. baree bari di ma xaw a pirate ak yooyu. tax du ma bëgg di wax euh, tur yooyu. damay bëgg di euh, ne ndomba gi rek. nañ koy defee tamit duma ko wax. képp ku ñu woo ñu wax la nag doog laa wax na nga defee ak ndomba gi tudd. ndax ndomba gi dañ ko waxoon am ñu baree bari ñu ma tàmbalee gis ñuy def ay faux ndomba yooyu. te ñun suñu liggéey doxewul noonu. Mm-hmm. ndax ndomba gi mi ngi dox si képp koo xam ne da nekk fenn ñu néew la doole. Mm-hmm. wala nga nekk di xëccoo mbir. Mm-hmm. wala nga nga tukki bëgg a indi dara. wala nga ne ngay xëccoo loo xam ne lu ay mbooloo mu baree bari bokk. wala nga nekk si ay jafe-jafe wala nga am problème jafe-jafe ak yoon. ndomba gi ci jooy lay dox ak kaaraange tamit da siy dox. ak bayra ndomba gi daal ndomb lu baree baree bari lañ ko booleel. te tax nañu dem fu baree bari ngir jàngi xam-xam boobu ngir mën a defar ndomb gi. Mm-hmm. te yaakaar naa képp kuñ ko jox. Mm-hmm. balaa am ay fan yu néew ñi ñu ko joxagul ñëpp tagg nañu gërëm nañu. Mm-hmm. ndax li tax ñu ko joxe ngir jëmmi sëriñ bi rek a tax. ak ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala. séntu wuñ si dara nag ngërëmal sëriñ bi rek lañ si séntu. waaw kon nag loo loola waral ndomb gi jóg ndax ñëpp ñëpp maase nañ di wax waxi ndomb gi. waaye nag dafa am ab lim boo xam ne moom la ñu joxe si ndomb gi. lim bi euh, weer wu nekk fukki ndomb ak juróom la ñuy joxe. d'accord bu bu weer bu fukki ndomb ak juróom yi matee képp ku ñëw da ngay xaar ba weeru weer wa si topp. Mm-hmm. ndax dafa am ndomb yi lu muy laaj. Mm-hmm. dafa am lu koy defaree dafa am luñ koy defaree. Mm-hmm. te mënuñu waxtu wu nekk di ko defaree di ko di ko defar di ko jox nit ñi ndax dañoo am yeneen ak suñu diggante ak suñu borom. ak yeneen ak yoo xam ne dañu ko war a def suñu diggante suñu borom. moo te ndomb gi day laaj temps. benn bu si nekk pour nga def ko lu mu gàtt gàtt dina jël ñaari fan. Mhm. moo tax ñun dañuy dañu dañuy te te bu si nekk dana jël juróomi benn waxtu suñ suñ temps. Mhm. te moo te temps dafa seer. Mhm. ndax suñu borom dafa xam temps ba da koy wax si alxuraan sax. ay fajar layli yu yooyu yëpp da koy sams yooyu yëpp da wax si alxuraan. moo tax temps dafa seer. ñun ndomba gi moo tax ñu koy def weer wu nekk fukki ndomb ak juróom lañ koy def. fukki ndomb ak juróom yooyu képp suñ suñu borom dogal sa wërsëg nekk si. wala képp koo xam ne nar ngaa jëriñu hmm. bis boo ñu wowee danañ fexe ba nga am sa ndomba ga hmm. waaw waaye ndomba gi moom képp ko jël di nga xam ne yii nga jël ak yi nga daan jël bokkul hmm. am na solo lool ma ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu ndoxu siti nga xamante ni daanaka sonal na ñu bari ba léegi kenn mënatul def dara daanaka sax day dem ba day téye seen wàllu ngooro euh, reen yi nag bari na mais tey ndoxu siti nga ci joxe ay garab yoo xam ni jéggi na doy wàllu ndoxu siti laa bëgg ngeen ma cay leeral luñ jàngi luñ jàngi woon la yàgg ci lool man ko lool hmm. te bu ñu nit laajee ci mbirum ndoxum si de hmm. dañ siy sawar lool hmm. ndax luñ xam la lii nag dama koy xam dama koy baaxee ñaankat yi du ma lan la lii lañu jël lii yaakaar naa gis nga ko lii lañu jël wale kook reen bi wale kook lii moom lañuy togg def ko ay ay garab am yeneen sunguf yu ñu koy booleel doo koo jox nit ñi ñu koy naan ngir ma faj ngir mu bañ ma nekk ay mu nekk ay njaq mhm. mën a génne ndoxum siti mi nekk seen yaram mhm. bu dee bu ko dee génne nag ñaari mbir la koy génnee mhm. kooku da koy tuur ndox da koy tuurloo ndox lu bëree baree bëri day naan lu bëri di ko tuur ndox lu bëree bëri ndax ndoxum siti dafa dafa doy waar ndoxum siti mën naa dem ba nit ki ñàkki bëtam ndoxum siti mën naa dem ba nit ki ñàkki loxoom ndoxum siti mën naa dem ba nit ki am jafe si sëyam naa dem ba nit yaram bi kenn du ko mën a xoolati. Mhm. ndoxum siti day dem ba yàq yaram. Mhm. ndoxum siti tamit bu yàggee ci nit ki lool lool day indi day day génn yeneen feebar yoo xam ne si nit ki la nekk. Mhm. kon ndoxum siti dafa baax lool nit ki euh, bu ko amee di ko traité. bala moo ko gën a sonal ndax lu mu yàgg lu mu gën a yàgg ci yaramu nit. day gën a yàq. lu mu gën a yàgg yàgg si yaramu nit mën naa dem sax ba tee nit ki am doom. loolu lépp ndoxum sit la koy def. moo tax ñun biñ xamee loolu lépp ci ndoxum siti ak gravité bi ndoxum siti def moo tax ñu dem gëstu si jàng ci bu baax a baax a baax ngir mën a faj loola d'accord ma ñëw ci li nga xamante ni nag xam-xam bu raar la bëriwul jamono ji ñu ko yor muy wàllu tux ak wàllu naan dimbali ci nit ba suñu borom def ci saafara mu bokk nga yor secret boobu. waaw euh, tux ak naan naa si ñëw waaye eh, danga may may rek bala maa ñëw comme que dangaa wax si ndoxum siti moo wax la tamit bii nii. waaw bii ci émoride lay dox. waaw waaw waaw. ndax euh, lu bëree bëri dox naa leen ko day jóge fii dem ba Europe. Mm-hmm. te yaakaar naa heure bi lu baax du fa dugg. wala na ñëpp. waaw surtout chauffeur yi. mu mm-hmm. si yaakaar naa ñu ko xam bëriwul. Mm-hmm. waaw sunguf si yaakaar naa ñu ko xam bëriwul. man sax maa ko def nii si mbuus pour bañ nit ñu xam nga rek jamono dafa day waar. te daanaka boo ko kiiwee da koy kii. garab gi moo gaaw ci émorite. nit ki bu émoritee ba mënut a dox. bay tëdd ci lal ñu koy yëkkati ñu koy jàpp ko yëkkati. su ko defee fañ ko wax mu def ko fa. ñaari benn fan laa la may mu jóg doxee soxlaam ndax garab gi maa ngi ko doon wax sama yeneen vidéo yi même boo daggee boo ko jëlee def ko ci dagg-dagg bi balaa mat deux heures temps dagg-dagg bi day wér garab gi maanaam ay millions yi millions laa si ñàkk pour di ko am samay samay xaritu éva évariens yi ñoo ma koy ñoo ma koy defal ak ay gane ñu am na su bëri yoo xam ne ñu fa laa koy jëlee mm-hmm. dama koy composé loolu bu defee di ko di ko mën a defar man Mm-hmm. léegi nag comme que Sénégal dañoo mën a fabriquer moo tax may obligé di ko def si mbuus yu mel nii. Mm-hmm. pour kenn du xam garab gi garabu lan la. Mm-hmm. képp ku ko am rek man maa la ko jox. te duma ko jox kenn ku dul client. ndax sama garab bugguma ñu koy jël di ko jaay di ko rax. muy am yeneen effet effet secondaire yooyu. te lépp pour produit naturel naturel lay doon. amul dara loo xam da leen da koo rax amul dara loo xam da dafa nekk ci biir. te maanaam loo xam ne luñ moo tax képp koo xam ne suñu na la nga am émorite ndax émoride dafa doy waar si dafa doy waar si nit ndax ni muy génnee si nit ni muy nekkee si nit loolu day dem bu dee góor sax day dem ba indil ko problème mu ngóor ak yooyu moo tax ñun dañoo obligé bu ñu defee garabu ndoxum si dañoo dañoo dem jaayaan tamit jéem a am garabu émoride hmm. ndax euh, émoride dafa bëri lool ñaari nit ñoo gis ceeb yeeg yooyu ñuy lekk moo tax nit ñi di am jafe-jafe jafe-jafe hémorroïde hmm. ndax problème mu reesal la ñuy am hmm. te li ngay lekk bu dee dafa yàgg sa biir bi moo lay indil problème seere mhm. seere bu yàgg boobu nag mooy tax doomu aadama di am hémorroïde mhm. hémorroïde bi nag am na mhm. buy dugg am na am na bu nekk si biir am na buy génn bu buy génn bii boo ko si def bii boo boo ko dugalee si biir da koy dagg bu dee bii gé bii dugg si biir boo ko dugalee si biir da koy dagg ci biir kon bii moom yaakaar naa ñi ma koy laaj bari na lool dama leen waxaat ne am na fi képp ku bëgg a commande mën ngaa commandat incha allah danañ leen ko si danañ leen ko danañ leen ko baaxee. ma ñëw ci wàllu tux bi. ak ah. wàllu wàllu naan bi. waaw tux dafa nekk loo xam ne euh, dafa bëri si jamono ji. Mm-hmm. ndax bu dee comme suñ dëkk bi ñu dëkk muy tuubaa mm-hmm. suñ borom dogal na ne xale yi moom suñ borom wërsëgale na ba ba ba waruñ ci loola. Mm-hmm. waaye boo génnee door foofu maanaam euh, dañuy am cigarette cigarette beeg sàngara si da leen jege jege goo xam ne. mooy tax ñu bëri di am mm, yombulate di sa di sa di sa dugg. Ah, moo tax ñu si bëree bëri di am yombalite hmm. di sa dugg hmm. si biir yombalite di sa dugg bi nag moo tax daanaka ñu jël si suñu initiative hmm. eh, gëstu yu baax a baax oh, def si ne képp koo xam ne suñu borom nattoona loola ngay tux wala ngay eh, naan wala ngay def xii demee na ko noonu bu la suñu borom dogalee ñu jëflanteeg yow insha allahu di nga tàggoog loola kon daal tux ak naan moom suñu borom may nañu si xam-xam boo xam ne képp ko jëflanteeg ñun si loola dana la si indil ay saafara sooba yàlla ma ñëw nag ci li nga xamante ni mooy tolluwaay jamono di actualité euh, ñu jëm làmb mu di diggante Sa Thiès ak Reug Reug làmb ji bari coow lool euh, yan leer nga mën a indil ci làmb jooju. waaw euh, Sa Thiès suñu taalibi la. Mhm. te Sa Thiès tamit wax dëgg yàlla nit ku baax la. Mhm. ndax ku ne Balla Gaye ne waa guy mind. Mhm. Reug Reug nag wax dëgg yàlla miinu ma ko. waaye ab sénégalais la. te ñu ko faral tamit ay sénégalais lañ. Mm-hmm. fi ñu dëkk ay sénégalais lañ. Mm-hmm. Euh, kon li ma leen ñaan mooy ñu xam ne ñoom ñaar ñoo bokk banlieue bi te ndam li képp ku ci daan génnul Sénégal kon li ma leen ñaan nag kenn ku ne daal waxak ak say ndaw te xam ne képp ku daanu suñ borom moo ne woon doo doo daan ndax yàgg nga daan mm-hmm. képp ku daan xamal ne bis dina ñëw di nga daanu. kon daal li ma leen wax ñoom ñaar ñëpp ñu ànd ak dal ànd ak yar. ànd ak teggin. mais mais naka nga gisee ñoom ñaar seen seen seen état de forme dafa mel ni jekk nañ de. waaw man yàlla xam na ne xam naa kii daan ah, xam naa kii daan te bés bu caméra yi wàccee naa la wax ne diwooy daan te nangam la koy daanee. Eh, loolu moom aw ma si sikk sàkk. Mhm. waaye xam nga bu dee da ngay nekk si béréb yu mel yu mel nii. Mhm. caméra yi tiim la eh, te ñaari wàll yëpp nga am fa ay nit. Mhm. waaw nit ñëw ne la ñaanal diw nit ñëw la diw. am na loo xam ne doo ko man mhm. ndax euh, nit ki amul lu dul yaakaar. Mhm. sa doom ji nga jël tey yóbbu ko yóbbu ko daara muy jàngi. Mhm. yaakaar nga am ci moom ngir bu màggee dimbali la. mbër mi nga jox avance mu dem entraîné ji yaakaar la am ngir daan. kooku nag boo ko waxee dara loo xam ne tas nga yaaka day yàq yaakaaram. tas nga yaakaaram. kon am na loo xam ne ñun waruñu ñu koy wax ci kaw. waaye xam nañ bu baax kii daan. te kii daan du ñu bett. te sax làmb bu jàllee ñu baree bare dana am lu leen ndax nañ koy foogee du demee noonu. làmb ji waaw làmb ji nañ koy foogee du demee noonu. ci gaawaay bi wala ci wàllu xeex. maanaam lu soof lay doon. làmb ji waaw lu soof lay doon maanaam bu jàllee danañ xam ne lu soof lay doon. d'accord kon daanaka moo tax jërut yenn yi daal. d'accord jërut yenn yi. d'accord waaw nañ gën a rafetal rek gën a bàyyi xel bàyyi xel te xam ne xale yi dañu roy si ñoom. Hmm. te lépp luñ def rek day day wàcc ci xale yi. Hmm. kon nañu gën a bàyyi xel loola. Hmm. mu mel ni ni nga faral de. ñu ah. <laughs> ngi message léegi di ma wax loolu. ah non non ah déedéet ah déedéet uh-huh. xam nga euh, ñun amuñu fuñ far. waaw mm-hmm. ah, ñun amuñu fuñ far ndax far waruñu. Mm-hmm. boo nekk kilifa la la war mooy tëddee njaaxaanaay. Mm-hmm. Ah, boo tëddee njaaxaanaay nag. Euh, da toog seetaan. ndax bu dee kii day ñëw di ñaanlu kii ñëw di ñaanlu te bu jo bu coo amee yaa war a àtte. il nga toog jàpp sa njàmbur. waaye kii daan ak yëpp moom xam nañ ko. Mhm. te sarax bu ndaw moo leen xaajal ñoom ñaar. sarax bu ndaw ndaw moo leen xaajal ñoom ñaar. combat bi. muy diggante Balla Gaye ak Reug Reug. Sa Thiès sa Sa Thiès dama ko jaawale mag ji. sarax Sa Thiès bu ndaw ndaw moo leen xaajale. Mhm. sarax bu ndaw te képp ku ko si def. Mhm. incha allah suñu borom dina la dina la may ndam. sarax bi ñoom ñoo koy def wala supporter yi wala ñoom ñoo koy def. personnellement képp ku ko si mën def baax na. waaye yàlla xam na ne képp ku si njëkk def kenn mënut a dee nga am ndam. waaw ah, sarax bu ndaw parce que làmb moom man ngaa jekku man ngaa jekku waaye man ngaa dem ba dara ñen minute yi hmm. suñ sarax mooy dëpp làmb dëgg la waaw xeetu yi xeet yu bare bari sarax moo koy dëpp hmm. même nit ki boo ko dee ñaanal sarax mooy dëpp la ko waroon dal hmm. sa sarax nag mën naa metti mën naa bañ a metti waaye képp ku ko si def rek suñ borom mën na laa may ndam d'accord mu ngi noonu xam naa kon fi la ñuy waxtaan bi neex na lool mais li diif ci nag bi xajul ci cin bi xam naa dinañ si gën a ñëwaat di defaat ay waxtaan yu bokkul ak yi ah, sëñ bi kontaan nañ di la jaajëfal di la wax lan ngay tàggatoo. waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen massaw si coono bi ngeen daj ngir ñëw interview ñu. ñoo bokk di sant tamit suñu waay suñu ñaari waajur. di di ñaanal suñu waajur wu góor wa suñu boroom xaare ko àjjana te tas si barkeem te lépp lum mu liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa fay ko foofa di ñaanal tamit suñu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad di ñaanal suñu xalifa Cheikh Mamadou Fadal di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi Sénégal te yeewoo Sénégal. di hmm. leen ñaanal jàmm ak tawféex. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. baax na jërëjëf.